nga kooku booy dajeex koo xam ki day wut da fekk yow am nga ba paré day metti koku mom bul fogg na né day yomb comme match suba bi ni ñun ñu xelaat sax match bu yomb asamala nak suba ha jamm parce que suba buñ la gañee da nga ñibi da yo ki ngay dajal ñun ñi sax xamuñu ko boko ko day gay bagage am la di wat fele yow nak ñu na non yow war nga mëna coupe du monde mais gis nga c'est le charme du football France la France a gagné la coupe du monde mais France lan la ñu foon jeu bu war tax moo gagné ko du monde amul mais détermination le joueur ni am euh, ñi nga xam ni France nit musul xalaat sax ñu jouer ñoom ñoo ñëw wane seen bopp ñu pas seen bop xam nga ba gagné coupe du monde bi mais nit musul xalaat ne France mi li muy produire ni dina gagné euh, coupe du monde finalement détermination bi ñu wara am la fa euh, Deschamps andi comme entraîneur euh, goos yi gëm loolu wane na ne ñun war nañu mën gagné coupe am xale bu tuuti boo xam 19 ans la am moom it wane ne man war naa yeno a yenn équipe bi ak ñoom et c'est ce que Sadio fait maintenant mais ce que je lui demande aussi que mu ngi commencé aussi di mel ni kuy xaw a boole ci ay caaxaan te c'est pas bon Euh, quoi euh, am na la am na communication faut mu xool ko tamit euh, du loolu tu es venu pour des compétitions tu vas jusqu'au bout jusqu'au bout mais j'ai pas de pression

mais il faut que dans le discours des entraîneurs et des qui, gosses diko et nous ça fait partie de notre force